gaaw bi kii di Cheikh Mansour Diouf amal na ndaje ak taskatu xabaar yi ci diggante Mbàkke ak tuubaa jataay boo xam ne mu ngi ko amal ci këram gi nga xam ne moo nekk ci tuubaa Daaru Xuddoos ci yoonu Touba beleel jataay boobu nag nee na li ko sabab moo di cant gi nga xam ne mu ngi koy waajal at mu jot te di ko amale fële ca Yoff cant googu nee na ma ngi ko jële woon ci Serigne Saliou Mbacke jaaroon nag ci ki nga xam ne moo di sëriñam di sëriñ Fallou Mbacke moom Serigne soin bu jataay boobu nag Cheikh Mansour Diouf amal na ko ci lu ëpp waxtu mu jàkkaarloo ak xabaar yi e, bokk na ci kàddu ya nga xam ne wax na ko fa muy cant ceex gi nga xam ne sëriñ Saliou Mbacke nee na moo ko ko seexal ñu déglu kàddu yi nga xam ne bokk na ci lam ca jot a wax. bokku mbaakol xam nga luy mbaakol ma ne ko damaa bëggoon a liggéeyal sëñ Tuubaa mais nag bu dee dama koy liggéeyal ba ay ndomba tànk di ma ci fekk tamit naa ko takk ba mu ndax li ndomba tànku àddina yi lañuy dañuy rayee suñu bopp asamaan bu jógee ci sëñ Tuubaa bëgg bu dee li nga wax ñi ne ndigal la lu jógee ci sëñ Tuubaa jaar ci sëñ ñëw ci yow bu dëgg la maa ngi yàllaa fi ne nga wax moom bu dee nag dangaa bëgg man dong nii ndax xëy na man ba di ko def tamit nga wax moom mu ne ma li ma lay tontu ajjuma ji di ñëw fekk ma Touba Dakar la boobu maa ngi liggéey université Ndar euh, alxames ci ngoon ma jógee Ndar dem Dakar sowu sama kër xëy fajaroo fa ñëw da Touba jaar këram ñu naan ko ñu ànd dem sëñ Saal bi man moom sëñ Saal doomam ñeneen ñu ñëwee ñu fekk fa waa kër sëñ Saal bi loolu 2006 loolu yàggul ñu ñëwee toog ñu dugg toog ñuy fekk sëñ maa ngi sonn mu toog ne ko man kat dama koo wax mbir mi mu mel ne ku koy sikki sàkk ma bëgg koo indi ci yow nga xamal ko ko ba xam ne man defaruwuma bay defar kenn waxe ko ko noonu suñ saa yu daal ne ko waat sàllaaw ba ko defee ci sa xol la ko suñ tubaanam li ci yéeme nag mooy damaa àgg kër ga rek damaa àgg Ndakaaru kër ga boobu embouteillage yi xatewul nii maa ngi fa maa ngi fi jógee ay 4 àgg fa yi 7 heures toog nii ci ëtt bi di waaje tàngal lu ataay am ñuy tëgg ngay riir ñu tëgg ay tëggu Baye Fall mel ne tëgg bu ñëw di jege kër gi di jege kër gi di ñëwee ba agsi ci kër gi ñu ne dañoo dégg ne dafa am ku ñu fi seexal te ñu doonoon ni murit te amuñu sëri ñu bëgg a bokk ci ñu njëkk a jënd ginnaaw yooyu dellu na it ci coow li nga xam ne toppoon na ko fii muy wàllu franc-maçonnerie bi nga xam ne wax nañu ne moom dafa ci bokkute daf leen doon organiser seen ndaje bi nga xam ne waroon na am ci centre conférence bu euh, euh, président Abdou Diouf nekk ci jam ñaajo kàddu yooyu nag moom dellu si na ci te nee na sax kàddu yi lu ñu wëlbati la rek waaye la mu wax ak la ñu nettali du sax benn kon li bokk na ci it la nga xam ne wax na ko ca. organisé ko sommet de la paix te japp na ne l'islam moy paix ñama ci woowoon it wax naa keroog may waxtaan ne ñooñu duñu ay franc-maçon musuma dégg ñu wax ko gisuma yit ñu def ma ci sama jëmmi bop ne woon naa ne man julit la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay roy te taal bi Serigne Touba manam ci bisu sommet bop sommet bu toll non nga koy def bo xam sommet mondial pour la paix ñu dajale adina parce que plus de 2000 personnes ñi fi won plus de mille deux cent personnes ñoo jóge woon extérieur ñëw ay chefs d'État ay chefs de gouvernement ay chefs religieux ay chefs coutumiers ak ay responsables ay leaders jeunes ak ay leaders femmes ñu ne dañuy daje pour xool comme ay kilifa lañu ku nekk na joxe xalaatam ci nan la ñuy def ba àddina bi am jàmm man may nitu diine di nitu lislaam te ku ma xam-xam ne ci jàmm rek laa mas a dox loolu mooy man sama rôle ñi ma xam bokk xaw ma ñi ma xamul fu ma masa ne fu problème bu ma am ci àddina sax ut jàmm moo ko defaree ay nit jàppale ay nit dimbali ay nit ñoom ñu gis ma ràññee ma boole ma ci ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu ànd dox jàmm ñu dox ko ay kilifa diine man yu ma mag ña nga fa woon yu yu ma gën a siiw ña nga fa woon ñu ñëpp xam nangul leen respecté leen ña nga fa woon te bis ba mais yàlla dafa dogal man maa doon président comité d'organisation donc lu toll noon ñu organiser président ñëw 1200 personnes yu jógee extérieur ñëw fekk fi seen i mbokki Sénégal yi tarixa yëpp bokk ci ñëpp waa kër Cheikh Sidi Hadji Malick waa kër Touba ñëpp ba fa nekkoon te ci organisation boobu am na ay kilifa diine yu bëri yu ci bokk yoo xam ne ñoo ma ko sax te seenu baax ak seen def baax moo tax ñu li ci nekk mooy lu toll noonu boo ko organisé bu paree dafa laaj nga wax ak presse bi

maniko c'est possible parce que adina fi dajé xam nga lool la wax mais mm. fàlli mm. c'est possible bo xam nga lu tax parce que nit day man man ay nit do nga fa dajé 194 pays ño fa dajé ci la bo ñu fa dajé donc mënumaa xam ki kan la ki lan la ki lum lima xam rek moy ñi fi dajé waxu jamm lañ fi wax lool la gis ñu def léna fu adina dajé nak lu né am na ay julit nañ fa am ay yéefar nañ fa am ay nangam dinañ fa am

moo xool yi le tombé yi ay nit fu ñu daje di wax déjà ay 1200 personnes bu ñu dajee Dakar hôtel yëpp fees pour man économiquement ñooñu mi ngi yokk seen pouvoir d'achat c'est euh, une valeur ajoutée la ci bon bon may nañ Gorée bateau ma ne jox nañ président benn prix boo xam accompagner nañ ko ak 50 millions mu may ko centre Talibou Dabo ak village SOS mais est-ce que nous foofu nag man dama jóg te reconnaître naa problème de communication parce que xam nga xaw ma woon ne yooyu nañ noonu booy wax da am noo ko war a wax rek man xam nga damaa wax rek li ma yëg daal xaw ma woon nit ne nit ñi dinañ transformé noonu waxuñu dama wax rek li ma sentir ma ne ko loolu président jël may ko taalibu daaw ak SOS est-ce que loolu ñooñu soxlawuñu boobu xaalis daan bu dee loolu la na franc-maçon yi ci àddina bi yëpp daje jox ma li ñu am waxuma ñoom dañ may jox may joxe dama ne bu dee lool ñoom nañu daje li ñu yor yëpp jox ma ko mu jël ko def ko ci diine

temps boobu ku taxawoon ci télé bi nan ko Sénégal amul xaar da ngeen son sonn demu leen fenn du ko neex lolou tax mu nekk ci koy jàppale muy dem di dem di dem ba ñu def ko ministre du budget après ñu def ko ministre des finances après ñu def ko premier ministre man je crois que son rôle pour moi c'était de contribuer dafa waroon taxaw approcher au ministre des finances approcher au président de la république moo wax leen li la xalat def leen ni def leen ni mais pas tok ci presse bi nan le Sénégal a des problèmes état mun choisir parfois gérer la trésorerie bi bañ ko dépenser parce que am lui luy waaj a ci kanam te dina laaj ay dépenses yu bëri am na luy waaj a nanga mu xol nan la koy gérer mën nek nekk nek une option hein, du gouvernement de ne pas dépenser actuellement baye gars yi xaw a sonn tuuti. ndax Mansour Diouf it dellu si war na lu yaatu lol sax te ay kàddoom boy xol sax euh, li mo ci gën yaatu muy le cadre yi mu wax ci président Abdou Diouf mu melone ni nak sax. ku sol robu avocat di défendre ki nga xam ne moo di président Abdou juuf muy loo xam ne nii nee na daal def na fi lii def na fa def na fi lii def na fa muy kàddu yoo xam ne nii nag lis ci mën a jàngate bari na nis ko mën a déggee it bari na xam naa dañ leen di bàyyi rek ngeen déglu kon kàddu yooyu nga xam ne jot na ko ci rotal lenn ci kàddu yooyu kon. Abdou Diouf est venu Abdou bu mu venee fi ne jeunes yi yëpp di wax koo ci wax mu a am na lu mu fi

mais deful noonu dafa ñëw xamné gaay ils aspirent à des libertés vaut mieux mu teel leen ko jox boobu temps Mandela la woon mi ngi prison kenn ñëwul dem Afrique du Sud mu amoon li ñu wax les pays de la ligne de front Abdou Diouf a été le seul président et le premier président africain qui a osé prendre son avion et survoler les pays de la ligne de front gars yi bu démé nañ ko abattre dinañ ko nangam mu def lutter contre l'apartheid ba ci école yi classe bo dougu dañ ci bind l'apartheid est un crime contre l'humanité ñu koy jangal ñu koy réciter diko répéter loolu am ju def bu dee ñi am nañu ko fàttali mm-hmm. moment bob pays africain yépp ñi ngi coup d'état génération Senghor bi ñom ñëpp ñu leen di coup d'état Senghor a été intelligent il est parti Abdou a été intelligent il a libéré les gens mais ñe Moussa Traoré ñom ñaa yëpp di dé ñi ñu leen di tëj dëkk yi di wax ay conférence nationale donc ces avancées démocratiques là bu gars yi toogee fii rek ñi nga xam ils étaient l'opposition Abdou Diouf wala ne indi moom joué na ci. ci jataay boobu ba Cheikh Mansour Diouf bi koy def amal nako ci kanamu ay jegeñaaleem ay taalibeem ak ay njabotam yo xamné ne ñu ngi won fofu ci jataay bi mu wax ne nag bi mom at mu nek ben yoon rek la koy def te moy bu cant gi ñew ci lay may occasion taskatu xabar yi ngir mën a wax ak ñoom wala boog moom sax ci lay am occasion ngir mën a wax ak taskatu xabaar yi bu amatee déwén rek la